jóg leen seen doom a yi ñuy teewlu ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee mu ñeel tournée nationale bu président Serigne Mboup di diisoo ak say nawle mbokki ci diwaanub Kaolack président Serigne Mbow amal na fa forum bu mag mu depee woon ko forum démocratie citoyenne di jotaay bu yaatu yaatu boo xam ne dañoo joxoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñoom ñu daal di euh, poser seen i question ki nga xam ne moom moo di président Serigne Mbow ñu woon ko nag ci cœur de ville bu Kaolack ci teewaayu Kaolack waayu takk lool bàyyee ko fu ne ñëw jàkkaarloo ak moom ngir poser ko ay question ci programme ak mébétam jëmee ci réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal bés bu demee ba yore ko ñu jukki leen lenn ci laaj ak tontu yooyu. yooyu ñu ànd ko. di ko wax ne ko su jëlee nguur gi te ñoo ko koy ñaanal présidence boobu muy wut yàlla nag ko yàlla jox kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu ko ciy laaj nag bu ko jëlee ñu jigéen ñu kaw Kaolack lan la ñuy defal. liñ war a fexe mooy loolu coupé mooy kenn ku ne fa nga nekk la ngay defar nga jiital jaay ko ci dëkk boobu. looloo tax ñun protocole bi ñu am ak Auchan fii dañ ne ko dangay fexe ba liy ñore ci Kaolack Kaolack gii nga koy jëlee loolu mooy loolu li ci tegu nag mooy financement yi fexe ba nga xam ne nii da ngeen am financement fexe ba nga xam ne nii tamit du ngeen dëkk ci financement mooy financement nit day am fonds départ bu yokkoo ba yëg ko mënal boppam ndax financement toujours dafa metti ameel nit ñi bor ñu lay topp dafa metti mbokk yi ba léegi ñu desandi ci forum boobu nga xam ne président Serigne Bou moom la doon amal ci cœur de ville bu Kaolack moom nag ñëwaat na ci ni nga xam ne ni noonu lañu war a yore réewum Sénégal mu nekk Sénégal bu yees boo xam ne ànd nawle lay doon waaye ñu dénk ko ñi nga xam ne seeni xel ak seeni xalaat rafet na lépp ñu àndandoo ci nguur goo xamante ni doo ñëw ngir jariñ sa bopp waaye jariñ askan wi lay doon ñu ànd ko. air bi ñu dugg mooy airu liggéeykat yi jàngkat yi borom xel yi ak xalaat yi ñoo bëgg a jóg jël réew mi jël bi nag du jëlub nguuru gëlub servir la te def li ñuy wax ànd nawle ndax constitution Sénégal moo njëkk a wax ànd nawle ndax bu nee sénégalais yépp ñoo yam loolu mooy àndum nawle bëgg nag slogan yokku ba yëg ko jël caabi gi lépp lu tëjoon ñu tijji ko mën nañ ko xam nañ ko te incha allah danañ ko def benn at ak genn wàll ginnaaw bi mu nekkee ci bopp mairie bu Kaolack moom président seriñ Mboup ñëwaat na nag ci emploi yoo xamante ni jot nañ ko créé muy xëyu ndaw ñi nee na lu toll ci juróomi téeméer emploi jot nañ ko créé te am na yeneen yoo xamante ni yu yees yu ñëwaat la lépp rek ngir jéem a suqali diwaan bi nga xam ne moom moo di Saloum ñu ànd teewlaat ay kàddoom. bañ fi toog ak léegi rek liñ fi créé gun ci emploi man na cent emploi pour Kaolack deveniraat ce qu'il était avant dëkk boo xam ne nii ay moral et prom diis lépp du dox ku liir mille 1800 1800 nangam buñ la expliqué Kaolack ni mu meloon danga naan waaw xanaa lii ay rêve la woon moo doon dëkk bi gënoon a dynamique ci Afrique de l'Ouest waaye loolu lépp mën naa ñëwaat ndax alquran moo nañu zalika bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan an'ama ala qawmin hatta yughayyiru ma fi anfusihim yàlla moo ne xéewal gi ma leen jox duma ko soppi lu duma ko dindi lu dul ngeen soppi ko. gox bu ne dañ ko war a suqali bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk man faa jàngee liggéeyee fa tekkee fa loolu gis-gisu président Serigne Mboup la mu nekk slogan boo xamante nii moom la fas yéene wéyee ci campagne élection présidentielle yu quatre yi loole nag la gëm te nee na mën naa nekk su fekkente ne doxal nañ ko ni mu waree. damaa jàpp ne il temps que soppiku ñu dem ci politique tànn ñi ñu war a tànn buñ ci paree ñu tànn député yi ñu war a tànn mu nekk nit ñu am engagement am courage ñu délégué leen ay responsabilité gox bu ne mën a développé boppam tubaab bi ñu colonisé woon sax bim mu colonisé bi mu ñëwee dox gox bu ne daf ko jox développement gox ba di développé xëy na après indépendance lañ buub lépp yóbbu dakaar nañ buubaat lépp andiwaat ci région yi mu tas ñëwaat Kaolack dem Tamba dem jigéen Ziguinchor dem lépp équilibre am ñu def li ñuy wax jànge fii liggéey fii tekkee fi lépp njëriñ la vraiment am na mbégte bu baax ci déglu bi ma la déglu gis naa ne ku wër àdduna bi te. maîtriser nga ay domaines yu baree baree baree baree bëri la waa ji waxoon ne Sonko mat na imam mat na président waaye vraiment yow it wax dëgg yàlla mat nga imam de waaye mat nga président waaw mbokk yi ñu teewlu li lañ leen indiloon ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen doon baaxee ci forum bu am solo bi nga xam ne moom la président Serigne Mbow amale woon ci cœur de ville bu Kaolack di forum démocratie citoyenne doon janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi doon leen déglu bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di seen i di jotaay bu am solo boo xam ne ñi ko teewee takku nañ lool góor jigéen mag ndaw bàyyi ko fu nekk ndax nee ñu dafa am solo lool en plus c'est une première ñu gis ñu organise ko fii Sénégal toog déglu askan wi déglu seen i préoccupation waaye jël ko en considération sant leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd gi ngeen ñun dig leen dajee ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf.